mbokk yi dal leen ak jaamu ñu ñëwaat ak yéen ci mbiri Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi ko fi coow toppee fan yi nu génn Moustapha Cissé Lo geneen coow sulliwaat na ko waaye bi yoon coow gi jëmalewu ko ci gouvernement waaye ci ab fameem maanaam ci ak njabootam ki fi nekkoon njiitu parlement bu CEDEAO bi la yoon ay doomam la porte plainte daat leen di yóbbu ci DIC division des investigations criminelles la ana li waral dëgg-dëgg ba Moustapha Cissé Lo daal di yóbbu ci yoon ay doomam yi mu jur ubbi leen seeni nopp ma wax leen Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi nga xamante ni fan yi nu génn yëkkati na fi ay kàddu yu doy waar jëmale ko ci kaw yaa ak ki nga xamante ni moo di Farba Ngom waaye tamit yeneen révélation yoo xamante ni def na ko jëmale ko ci Marème Faye Sall ak njiitu réew mi Macky Sall di borom këram ak yeneeni kàddu yu ñaaw yoo xamante ni jëmale na ko ci ñeneen lii moo waraloon ba ay doomam dat koy forcer yo ko ci ab clinique privée daal di wàllu ndax dañoo jàpp ni seen papa dafa daldi sonn loolu ndax dafa dëkkee ci ab dang-dang maanaam 2009 ba léegi kii di seen baay si Cissé Lo dalluwut benn yoon ba tax nag mu daldi koy jural fatigue intellectuelle maanaam xel mu sonn loolu ba taxoon nag ñu daldi amoon yéene dat koy yóbbu ca benn clinique mu daldi fay reposer waaye doom yi yamuñ ci loolu dañoo confisquer li nga xamante ni moo di téléphone yi mu doon wuyu ngir bañ tamit mu daldi amalaat yeneen audio yeneen saaga yoo xamante ni dina ko tifaaraat ci réseaux sociaux yi waaye mbir moomee neexut benn yoon ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo ba tax mu daal di bind ab plainte yóbbu ko ci division des investigations criminelles ngir doomam yi daat koy joxaat téléphone te bàyyi ko ñibbiwaat ca këram ci fàttali nag Moustapha Cissé Lo ginnaaw saaga yim fi yëkkati woon waa alliance pour la république ci njiital commission discipline bi dañ ko daq ca APR di parti bi nga xamante ni moom Moustapha Cissé Lo bokk na ci membre fondateur yi